الحمد لله الذي ملأ قلوب الموحدين من أنوار لا إله إلا الله ونور بصائر المؤمنين لما أشرقت في قلوبهم لا إله إلا الله وأرسل الرسل لأجلها مبشرين وعن ضدها محذرين وأنزل معهم الكتاب بالبراهين ونشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله مجددا دعوة إخوانه الأنبياء لتحقيق لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه لا إله إلا أنا فاتقون أيها المؤمنون إن الله عز وجل نادى موسى عليه السلام قائلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله فلا إله إلا الله خير ما يعلمه الإنسان ويردده كل لسان بقلب خاشع متدبر يقول جل وعلا فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla suñu boroom subhanahu wa taala moom mi bennale moom mi feesal xolub ñi nga xamante ni ñoo koy kennal ci leeru baat bii di laa ilaha illa allah moom borom bi subhanahu wa taala mi leeral xolu ñooñu ko gëm ci seen biir xol ci baat bii di laa ilaha illa allah yàlla suñu boroom subhanahu wa taala mi yónni ay yonentam ngir baat bii di laa ilaha illa allah ñu koy bégalee seenum xeet waaye di leen xuppit ci contraire baat bii di laa ilaha illa allah muy bokkaale ànd ak yonent yooyu mu yónni ci ñu jotal baat bii mu wàccee ci ñoom ay téere ngir mu nekk ak lay gu dëgër ci ni seen mission ci kaw suuf mooy ni jaam ñi tënku ci baatu laa ilaha illa allah ñuy seede ni amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala moom muy borom yërmande gu yaatu gi di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yónni muy yeesalaat wooteeg yonent yi ko jiitu woon ci baat bii di baatu laa ilaha illa allah di ko dëggal yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam ba keroog borom bi subhanahu wa taala di donn suufam si mbokk yi ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla yàlla ñu koy dénk ci alquranul karim mu ni laa ilaha illa ana amul kenn ku ñu war a jaamu kudul man fattaquun na ngeen ma ragal na ngeen di def samay digle tey bàyyi samay tere kàddu googu la yàlla suñu borom subhanahu wa taala dénkoon yonent yàlla Muusa alayhi salaam ni ko yaa Muusa xamal ni amul kenn ku ñu war a jaamu kudul man kon nag ma jaamu mu wax ko suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko faalam xamal ni yow muhammad ni annahu la ilaha illa allah ni amul kenn ku ñu war a jaamu ku dul man yàlla subhanahu wa taala mbokk yi baat boobu di la ilaha illa allah mooy baat bi gën ci li doomu aadama di génne ci làmmiñam mu war a ànd ak nag xol bi di ko teewlu di ànd ak it ñuy settantal baat boobu di laa ilaha illa allah baat bii di baatu tawxiid yàlla suñu borom mu ngi xamal ni bu ñu jëloon asamaan ak suuf ak la ne ca biir lépp teg ko ci balance jël baatu laa ilaha illa allah teg ko ci beneen balance bi nee na kalimatu laa ilaha illa allah da koy wat muy baat boo xamante ni it mbokk yi moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni umirtu an uqaatila annaas xatta yaqulu laa ilaha illa allah yàlla de mooma yónni ci yéen te boobu lay jamono digaloon leen ni le képp koo xamante ni gëmuloo baat bi yàlla digal na ma ma déclaré gee xeex ak yow mu ni nag képp koo xamante ni tudd nga boobu lee baat nee na sa deret be dootul dagan ñu koy tuur sa alalit dootul dagan ñu du ko laal lu dul lekk aqu islaam tàbbiti baat boobu di kalimatu laa ilaha illa allah mbokk yi kii di usaamatu bne zeyd radiallahu anhuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da leen yónni woon ci benn ngir ngir ñu dugal fa islaam gëmloo leen baat bii di laa ilaha illa allah usaama mu ni ñu xëye leen di xeex ak ñoom ba gañe leen nee na ñu seen benn waay di daw ñu dàq ko nee na mu dàq ko moo ko kenn ci waa ansaar bu mu àndaloon bi ko kenn ci waa ansaar yi jàppee usaama nee na ma dal di jël sama xeej bi dal di koy jam te laataa ma koy jam mi ngi naan laa ilaha illa allah waaye terew dama ko rey comme saxaaba yi alayhim salaam radiallahu anhum ñoom lu ñu mës a def dinañ ñëw ba ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko nii lañ def mu ñëw mu ni yaa rasulallah ñun de dañoo dem ci xam ñu yabaloon waaye am na waa yoo xamante ni dañu ñëw ba jub ko ba jàpp ko ba war koo rey mu soog ni laa ilaha illa allah yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow usaama ndax da nga koo rey fekk boobu mu ngi naan laa ilaha illa allah usaama mu ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam di baamu wax jooju yow usaama ndax danga kaa rey fekk mi ngi naan laa ilaha illa allah mu ni ko ba mu koy wax li ma yoroon muy ngànnaay gi la ragal moo tax mu wax ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ci beneen riwaaya ni ko ndax danga xar xolam ba xam lan moo nekkoon ca xolam ba mu koy wax Usaama mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam di répété baat bi ba mu naan ak a neexoon bis bi tey nekk bis bi ma njëkkee dugg ci islam tuub radiyallahu anhu rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi kàddu googu di kàddu tawxiid di laa ilaha illa allah du baat boo xamante ni rek baat la bu ñuy tudd rek jeex na waaye dafa am ay maani dafa am yoo xamee ni baat bi moom la làmboo ngir mu doon baat bu dëggu ci yow bi ci njëkk mooy al ilmu nga xam baat bi lan lay teg baat boobu nga wax ni mooy laa ilaha illa allah di ko wax suba ak ngoon ci jamono junni nga koy wax mooy ni li muy teg yaa ngi dàq ni amul kenn ku nu war a jaamu ci dëgg ku dul subhanahu wa taala ginnaaw bi nga xamee ni baat boobu loolu lay teg ñaareel bi nga war a xam ci baat bi mooy al yaqin baat bi dafa war a nekk lu dëggu ci yow du nekk rek mujarradan loo naan laa ilaha illa allah waaye ginnaaw ba nga xamee sens bi mu nekk lu dëgg ci yow ñetteel bi li nga war a xam ci baat bi mooy alqabul mooy nga nangu ko nag xam nga ko gëm nga ko nga nangu ko ñeenteel bi mooy al inqiyaadu mooy nga di ko doxe ginnaaw bi nag ngay sellal muy juróomeel bi al ixlaasu lillahi al munaafi shirk ngay sellal ci baat bi ci dundin bi ngay dundee ci baat bi ngay wax muy baatu laa ilaha illa allah juróomeel bi mooy as sidqu zahiran wa batina nga sax nag saa su nekk di dëggal baat boobu ci yow ci sa doxin ak sa waxin juróom ñaareel bi mooy almahabatu laha baat bi nekk baat boo xam ne baat boobu miin bëgg ko di ko tudd muy muy raisonné sa biir xol mbokk yi suñu borom subhanahu wa taala nee na huwa alladi yusawirukum fi l arxam daf ñuy fàttali fa mu jaar ak ñun mu ni bi nga nekkee ci sa ruxumu wayjur nee na kenn fekk ko ci liggéey boobu mu façonné la génne ci yow ay bët génne ci yow ay nopp génne ci yow cër yépp ci anam gu mu gën a rafet na génn bis jot borom bi subhanahu wa taala nee na summa sabila yassara ma jàppandal na nag ba nga génn génnuwaay boo xamante ni génnuwaay bu mucc la te juróom ñaareelu fan bi nee na sa lépp mi ngi doon dégg waaye am na lu dégguloon ci yow la war a déggaat ci yow nee na faw ñu salabaatu laa ilaha illa allah yooyu soog a yewu ci yow mooy waral ñu noddal la ci nopp bi ku wax nodd wax ashhadu an laa ilaha illa allah liqaamal la ci beneen nopp bi ku wax liqaam wax laa ilaha illa allah nee na yeneen cër yi ne ci yow nag ci lay soogoon nag di wuyu mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla fitra la la jox nag ci booba jamono lu sell ni la nag fitra gi ma la jox laa tabdila li xalqillah xañ naa ko sa morom wërsëlu ko yow rikk nag ci kaw suuf bu fi def lenn mala bu fi def lenn niy goroo di ndax man ak yow dong la woon keneen ndaxuñu woon mbokk yi ana ñun ci gëm bi ñu war a gëm ci kalimatu laa ilaha illa allah ak fi yàlla jaar ak ñun ñu ñëw ba jamono seytaane naxuñu tegal ñu ay ndëggi sërëx ci di ñu gëmloo ay xeeti xeet ci jamono ji muy feetu weddi yàlla ci fam jaar ak yow an daa lirrahmani walada mooy ni de ah dañuy feete Noël nag lu tax ñu ne ah suñu dëkkandoo yi ñu nekkal di ànd gee rafet rek mbokk yi du loolu waxoon nañ ko dinañ koy waxaat feet gi feetug pas-pas la feetu gëm ni yàlla subhanahu wa taala am na soxna ba am doom subhanallah loolu mooy feet bi mbokk yi ñuy jox misaal gu dund nag benn gone moo ñëw ci ay waajuram ne ko papa ren duñu feete Noël subhanallah waajur bi ni ko wàllu xew mu ne ko ah imam nee na de feete Noël dafa xaraam de subhanallah waajur bi ni ko man de xamoon naa ni dafa xaraam waaye bëggoon lu la neex subhanallah bëgg lu la neex sa njaboot ba nga leen di teg fu yàlla bëggul doom ji noppiwul ci kàddu yi muy dénk waajuram mu ne ko daa nga ñu jox ay cadeau sax ci bis bi waajur bi ne ko ah kay mu ne ko cadeau yooyu na nga ko jëlee ay leneeni jumtukaay yu sama yaay soxla nga jox ko ko subhanallah mbokk yi est-ce que du xale bi jox na dars bind mu bees tàq waajuram aha kay est-ce que it joxaatul bind bu bees tàq waajuram bu jigéen aha kay ci masuulee bi nga xamante ni muy responsabilité bi la yàlla di laaj ëllëg ci nga jël sa njaboot ca la leen neex ànd ak ñoom ca la leen neex ni ay gone lañ rek dañ cee toll ba nga dem ba leen fi mbokk yi inna alladina qaalu rabbuna allah ñi ni yàlla mooy sama boroom ba tege ci yoon bi teg ci sa njaboot it loolu mooy tax ba allah xawfun alayhim wala hum yahzanun mooy tax ba fa nga jëm ca la nga war a rendre compte ak sa boroom doo ci am looy tiit wala tahzan te la nga bàyyi sa ginnaaw tamit muy njaboot gi doo am jaaxale ci ñoom ndax yàlla nga leen dénk rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina adaba naar rabbana la tuaxidna in nasina aw axtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك السوي اللهم اهدنا إلى صراطك السوي اللهم اهدنا إلى صراطك السوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله